dal leen ak jàmm ci leeral point net tey nag ñu ngi xëyee ci xëtam gu njëkk affaire des passeports diplomatiques le verdict est tombé pour Mamadou Sall Boubacar Biaye et Diadji konde naka rek daal mbiru passeport diplomatique ak mbirum njuñ njaaj yi ñu ci nemmeeku woon naka verdict bi rek daal daanu na ci bi yaay Mamadou Sall ki nga xamante ne moom mooy Jaaji konde affaire googu nag muy trafic des passeports diplomatiques googa ñu xam ko rek daal ni ni mel daanaka leer na fu mu ne nii ci ñaari député yi nga xamante ne mbiru passeport diplomatique yooya ña nga ca ba noppi itamit ñu xam ne verdict ga muy kenn ku nekk rek ci ñoom am nga ci lu toll ci euh, deux ans d'emprisonnement ba noppi itamit euh, cinq mois yi nga xamante ne dañ koy tëdd ak six mois bi nga xamante ne itamit euh, keneen ki daf koy daal di tëdd naka noonu rek daal ñuy daal di xamle yéene kaay lu mu daal di xamle ci verdict gile gannaaw tey ji muy jeudi 19 mai di 2021 rek daal du Biaye moom nag itamit dafa daal di rek am ci lu toll ci deux ans de prison yi nga xamante ne cinq mois lay daal di tëdd ki nga xamante ne moom mooy naataangoom di Mamadou Sall moom nag daal deux ans prison la daal di am am naam waaye moom six mois lay daal di tëdd ferme naka noonu rek daal ñuy xam ne ñoom seen complice googa di jaaji Condé moom nag moom daanaka mbir mi xawuta neex ci moom ndax naam sax daal dana tëdd ci lu toll ci moom mi ci deux ans de prison moom it waaye moom dina tëdd ci lu toll ci dix mois ferme yi nga xamante ne dana ko daal di def ci prison yooya ci fàttali rek daal ñaari député yooya dañoo bokkoon rek daal ci mbirum njuñ njaaj passeport diplomatique yi nga xamante ne nit ñi dañ leen di jox rek ay xaalis ay daal ñu defar leen ay passeport ak ni ni mel ak yenn client yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ca waaye tamit ak yenn ñi nga xamante ne dañuy i jabar lañ wala daal di xamle ci yéen kaay gilee ba tax na rek daal verdict gilee daal dina daanu naka tey jii ba tey ci xëtam gu njëkk ci leral point net Gabrielle Kane non vie en tant que femme ne valent rien au Sénégal c'est une bonne honte d'avoir et cetera naka noonu muy daal di xamle moom Gabrielle Kane gannaaw démb rek gi mu daal jàkkaarloog taskati xibaar yi ci conférence de presse am googa muy daal di xam le rek ñoom ñii ci seen bopp seen dund jarul dara en tant que femme fii ci Sénégal ndaxte itamit ab gàcce la sax ñoom ñuy am yenn place yile ndax moom Gabriel daal dina xamal ne itamit ñoom ñii kat jaruñu dara ci kanamu Sénégal loolu la daal di wax te itamit justice gi nga xamante ne daanaka mu ngi ci réew mi ñenn ñi dong la fi nekkal li ko waral mooy mbirub Lissa Tine mi ak Aïssatou Diop ñoom kat daal kenn gisul rek dossier di ko topp comme niñ ko waree moom ci ay kàddoom mu ne ab gàcce la dong ñu gis ne yenn dossier yile amul benn suite maanaam dossier Lissa Tine mii waaye moom mii mu ne ki nga xamante ne muy Lissa mu disparaître depuis 2019 ba tey ji amul dara loo xamante ne rek daal wax nañ ko ca te en tant que femme fii ci mim réew jaruñu fi dara moo tax mu ne fii kumba am ndey ak kumba amul ndey moo am fii ci réew mi ba tax na moom mi adduwaat tamit ki nga xamante ne moom mooy Souleymane Ciss daal jëkkër ga woon ci Aysatu Jóob gannaaw gim ko daal di bawee ndax lan amul ab ndaw naka noona mu ne naka rek la ñu mën a traité genre góor ñi entre parenthèse d'imbécile ci ay kàddu moom mi Gabriel naka noona itamit mu ne moom pare na pour dem camp ndax parewul sax pour changer li nga xamante ne moom mooy discours am ndax c'est vraiment désolant di gis rek daal yenn jigéen ñi itamit ñu leen di traité ni ni mu ne ak fi réew mi toll ñenn ñi itamit di taxaw di naan dañuy xeexal jigéen xalaat dong la naka moom Gabriel Kane lii la daal di xamle naka démb rek daal gi mu jàkkaarloog ak taskatu xibaar ya ca Fun City ba tey ci xëtam gu njëkk ci leeral point net frappe dénonce le deux point deux mesures de la police avec l'affaire des de mars deux mille vingt et un naka noona frappe di daal di ñaawlu rek daal ab njëng gi nguur gi jëng waaye tamit ak justice gi nga xamante ne ñaari boor dong la daal di am surtout ci police gi waaye tamit ci affaire yi nga xamante Zumor ci mars gée ñu jàll muy mars 2021 naka lu rek laal la ñu daal di xamle FRAPP rek daal di félicité police Sénégal gannaaw gi ñu daal di informé rek daal ci ab communiqué jàpp nañ ñi nga xamante ne mooy ay agresseur yu nekkoon rek fële ca zone de captage ba noppi rek daal bëggoon nangu moto jàmbur googa waaye tamit euh, FRAPP itamit di daal di ñëwaat rek daal ci mbirub inquiétude ñoom ci seen bopp ci lu ñu nemmeeku ñi ne ay agression yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi naam dañ koy nemmeeku waaye itamit gis nañ ñu police mu ngi ciy def liggéey gu am solo waaye daa mel ni rek daal police lu mu bëgg a gis rek lay daal di gis ne àdduna ni rek daal ci ay eh, force de sécurité et de yi nga xamante ne nguur gi Macky Sall moo ko daal di moom loolu lañ daal di wax ñoom nag daal dañuy viser rek daal di protéger régime gile eh, ci yenn yi nga xamante ne daal def nañ ko en dépit de la population naka noona ñoom nag daal ñuy daal di xam ne bu fekkee itamit police daal mënul def liggéeyam comme ni mu ko waree depuis année benn jàll ba tey jii mu fexe rek daal ba jàpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay assassin 14 morts yile maanaam yu amoon eh, ci mars 2021 yee ñu jàll et pourtant gis nañ ab vidéo bi nga xamante ne ab policier bi nga xamante ne dafa daal di assassiné Cheikh Wade loolu lañ daal di xamle et pourtant vidéo yooyu am na ñuy àdduwaat ci leneen ñu ne am na ay vidéo yi nga xamante ne itamit day wone ne ab auto police bi nga xamante ne gis nañ plaque immatriculation am waaye moom ci boppam moo daal di fiir ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Timéra te pourtant mujj na ca gaañu ca 2018 te ba tey jii eh, kenn mënu laa wax ne mbir mi fii la aw maanaam benn décision justice su Sénégal gi jëlu ko nee nañ nag police bu Sénégal est-ce que itamit day am ay vidéo dong yoo xamante ne ñoom dañ koy exploité wala est-ce que président Macky Sall ci boppam agent wam yi dañuy am ay vidéo yi nga xamante ne dañ koy daal di tàmm ñu ne ñoom ab laaj dong la ñuy daal di laaj ca loola te itamit ana itamit force de sécurité de défense gi nga xamante ne day daal di assassiné ay citoyen ñoom nag est-ce que itamit loolu yoon na wala du yoon ab laaj dong lañ daal di samp ca loola ñoom frapp ba tey ci xëtam gu njëkk ci leeral point net entre canicule et coupure intempestive d'électricité le calvaire des populations de Linguère naka noonu ñuy daal di xamle askanu Linguère kat ñu ngi sonn lool ci diggante tàngoor ak coupure courant gu tar gi ñu nekkee gannaaw rek daal gi ñu daal di sonnee ca loola ñu daal di xamle yéenekaay gile population Jolof gile ñoom nag daal fu na ne nii sonn nañ fu ñu xam rek daal dem nañ fa diggante tàngoor gu ne coupure gu courant gi nga xamante ne daanaka chaque heure day daal di ñëw loolu lañ daal di dikkee waaye tamit température bi mu ngi ba 42 degré dans l'ombre maanaam rek daal bu ngoon jotee fu mu ne nii ñu ngi ci 42 degré loolu nag mu nekk lu metti lool ci ñoom ba tax na ay matériel yu bari yi nga xamante ne rek daal ñu ngi ko dencoon daal dina yàqu lu mel ne ay ak ni ni mel waaye seen activité yu bari dañ ko daal di taxawal ndax lan daanaka ñu toog ñetti waxtu yu tegaloo te courant coupé wul fu nii ngir gis ab galaas goo jënd dong sax jafe na lool ba tax na ñoom ñi ci seen bopp ci tàngoor gu metti lañ daal di nekk itamit xamuñu nan la ñuy daal di def gannaaw ab coupure bu courant bi nga xamante ne dañ ko nemmeeku ci département bu Linguère yépp loolu nag daal ñu ngi ko daal di xamle naka noona ñu fàttali ne waa lekk nag ñoom ci seen bopp amoon nañ ay perturbation fii ci ndakaaru ak ci biim réew naka noona ci ndakaaru itamit ñu nemmeeku ay coupure daanaka bës gu jot loolu rek daal mu nekk askan wi nga xamante ne daanaka fu ne nii ci tàngoor gu metti lañ daal di nekk ñenn ñi itamit mënatuñu def dara te courant amut moo tax daal fu mu ne nii ab njàqare moo daal di samp waaye tamit ki alliance de la googa ñu ngi jéem rek daal contacter leen ngir xam itamit mbirum Linguère googa lan moo ko waral waaye ba tey ji téléphone am day daal di sonné rek dans le vide loolu la la ñaal di xamle bu ñu sukkandikoo ci Seneweb ba tey ci xëtam gu njëkk ci leeral point net ñu àddu ci leneen insécurité au mariste les agresseurs dictent leur loi naka rek daal ñàkkum karange gu nekk fële ca mariste ak agresseur yu ñu gàññ yi nga xamante ne fu mu ne nii ragaltuñu dara ci agression gi ñuy daal di def gannaaw moom mii bi mu daal di fekkee ab agression ci kanamam ak ki nga xamante ne ñu ngi koy woowee AS moom ji ci mardi ji ñu jàll mu nekk ab étudiante bi nga xamante ne dafa rek naroon dajji buntu këram fële ca mariste ngir aw ay agresseur naka noona bu ñu sukkandikoo ci bis bi moom mii kat daal dafa daal di fekkee ni ni mel waaye gannaaw giñ ko dal di interpellé moom mii ci boppam dafa daal di expliqué ne moom kat daal dafa daal di woon tiit ci ay kàddoom moom ndaw si jigéen ni mu ne damaa fekkee ñaari agresseur di agressé ki nga xamante ne mooy ab jànq bi nga xamante daa wàcc ci tata rekk daal ñu dal di ko téye jël saakam waaye nag ñoom ñu ngi nekkoon ci ab moto loolu la daal di xamle mu ne moom mu ba xamul lu muy def mu daal rek daal foray dàllam daal di daw naka noona ci ab panique la daal di xam waaye ngir dëggal loola raqam bu góor bi nga xamante ne ms lay daal di wuyoo moom nag daal mu ne moom it dafa daal di fekkee ni ni mel comme beneen scène boo xamante ne lépp ba tey ci Maris la waaye ci kanamu école am la daal di xewee vers 15 ca loola rek daal muy daal di xam ne lépp daal ci zone euh, Maris bi la daal di xewee waaye gannaaw rek gi ñu daal di déggee agression ci zone de captage gile waaye ñu xam ne yemu fa fu ne nii agression bi mu ngi mel ni tulli ak malli ci dëkk bile rawatina fële ca Maris si ñi koy defee bëccëku ndar kàmm loolu la ñu daal di xamle ci yéen kaay gile